depuis quelque temps gis nañ ni feebar bi ñuy wax Covid 19 dugg na ci Sénégal euh té yakarna ni tay radio boo taal dem place bo dem nek na lu ñuy waxtaane ba taxna chef de l'État jug ak gouvernement bi jël ay matuwaay waaye aussi wo bép askanu Sénégal mu duggal loxom ci bir euh, xex bi te lii euh, acteurs yu mbuur yi ñu ràññee ci membre gouvernement yi ñu ràññee ci député yi ràññee ci maire yi ràññee ci ñeneen ak ñeneen dafay jëmmal rek woote boobu nga xamante ni président de la république def na ko parce que xeex bi dafa nekk xeex boo xamante ni ñun ñëpp la soxal te dafa am ay pàcc yu bëri bi ci gën fës mooy wàllu wér-gu-yaram bi parce que nit moom bu feebaree il faut que ñu faj ko waaye am na yeneen euh, pàcc ràññee nañ ci wàllu sécurité parce que buñu jëlé ni tere nañ ay dajé il faut que service de sécurité yi jëmmal ko buñu jëlé nit aussi ni dañ ko tere mu génn kërëm parce que japp nañ ni jankonté won na ko xamanteni ni am bi day am yu muy soxla parce que il faut mu soxla dund te mom mënu ko dem jëli il faut que ay service ñëw wutu ko ci côté bobu pour que mu mëna a ak euh, situation bobu mais ci euh, avec dignité ba tax na ndimbal gi nga xamante ni moom moo dafa méngoog li nga xamante ni service yi soxla nañ ko parce que keroog euh, ci euh, alxamis woote nañ réunion bu mag bi nga xamante ni moom comité départemental de gestion des épidémies ci biir réunion boobu gis nañ solo bi nga xamante ni jumtuwaay service yi am am ko mu nekk ay jumtuwaay yoo xamante ni bëri na lool te peut-être nekkagu fi ba tax lii bu ñëwee day dooleel service yooyu pour ñu mën a def seen liggéey mën a protéger seen agent yi waaye aussi mën a renforcer sensibilisation bi alors comme ni ma ko waxee comité boobu dajale na ñu bëri biñ ci duggee non seulement woo nañ ci ay leader d'opinion gën a waxtaan ak ñoom ci feebar bi pour que ñoom bu ñu delloo ñu mën a waxtaan ak askan bi pour ñu attirer seen attention que di feebar bi moom lu am la te nuñ koy moytoo mooy ñu respecter yi nga xamante ni ay ndogal la ñu jël loxo bi rassemblement yi waaye ci foofu gis nañ ni ni askan wi war taxawé taxawé guko parce que demb ci aljuma ji ñaanon nañ imaam yeeg ulema yi pour que ñu baña julli ci juma ji mais gis nañ ni amna ño xamanteni teñ nañ julli nañ police ak gendarmerie am na taxawaay buñ ci def mais yaakaar naa ni mënoon nañoo bañ a egg foofu yombalal état liggéey bi parce que euh, maire sànq wax na yi nga xamante ni ci dañu am katan bu up sunu ba sax danyo jang kontek ay jafe-jafe ci xeex euh, jàngoro boobu te ci benn lay commencé chaque jour mais fa muy day bëri donc pour ñu bañ feebar bi gën lor sunu réew nañu respecter yooyu te ñuy ñaan parents yi aussi xale yi yi nga xamante ni dematuñ école nañ leen téye ci kër yi bañ leen a bàyyi ñu dem ci plage yi ci mbedd yi et cetera et cetera donc yaakaar naa ni lii nga xamante ni def nañ ko dina tax ñeneen ñoo xamante ni am nañ xel bi waaye peut-être euh, jëfaguñ ko ñu mën a gaawantu parce que xeex moom boo ko tàmbalee lépp loo ci war a jël comme jumtu jumtukaay pour. Euh, gañee xeex boobu da nga ko war a teel a jël teel ci jóg pour yàlla defal ñu ci. waaw foofu moom ma comme ni ma ko waxee sànq rek parent yi moom ñu ci am wàllu bu rëy rëy la parce que xale premier responsable am mooy waajuram te bu ñu jëlee école yi tëj ko parce que dañoo bañ xale yi di dajaloo bu ñu dajaloowul ci école yi waaye di dem di dajaloo ci mbedd yi wala ci plage yi daanaka tëj école yi. lañ ci jublu woon duñ ko ci am donc ba tax na yaakaar naa ni dañ leen di ñaaxaat rek pour que ñu téye xale yi pour que yàlla musal ñu ba nga xamante ni ñu am ci ay cas mu mën fi am pour que bu fi euh, bi ñu ci sunu yitte ku ci nekk euh, mën a nekk ci jàmm ak